waaw Marché ma lay nuyu di la di la ndokkale ci bis bi vraiment tey ngay tudd sa doom mais gis naa ci champion yëpp ñu ñëw ànd ak yow ñi nga xamante ne dañuy entraîner ci saal yi gis naa mbër yi ñi sa relation ak mbër yi ak bis bi tey ban yëg-yëg nga ci am. waaw ginnaaw ba ñu sante yàlla ñu ngi julli ci yonent bi. Hmm. di gërëm suñu ñaari waajur. Hmm. Hmm. di gërëm suñu ñaari waajur bu baax a baax a baax a baax. di santaal yàlla di julliwaat ci yonent bi bu baax di gërëmaat suñuy waajur bu baax a baax. Euh, di leen sant yéen waa wasaare lamb yow seen jili ak sa caméra ak sama rakk elage moom tamit maa ngi koy sant di ko gërëm waa Sénégal Buzz yëpp ah maa leen di sant di leen gërëm. waaw lii moom bisu mbégte la bisu sant yàlla la daal yàlla ndax tey lii du question duñ jàmbaarte du xaalis du dara ndax yàlla moom moom mooy mooy wërsëgalaate waaw yàlla nag moo ñu wërsëgal doom bu góor donc mu nekk loo xam te ne bisu sant la et puis ñëpp ñu ñëw fi waaw di jàpp ci ñu jàpp ci loolu daal voilà loolu la. ak mbër yi gis naa fi ay Gris 2 gis naa fi Alboury gis naa fi mbër yu bare bare ay ku ci nekk gis naa mu ñëw. vraiment bu Siteu seede seede yu rafet. Hmm. ngay ñëw ci saal ba maam du du la encaissé. da lay entraîner état de forme bu nga bëgg da la koy jox te du la du séntu ci yow dara loolu laal la. waaw loolu moom loolu moom loolu moom. kontante la ak mbégte la parce que sëñ Jili peut-être que yéen mën na am yàggu ñoo xamante mais hélas mi ci kër gi la juddoo waaw moom ci kër gi la juddoo ci kër gi la màggee wax dëgg yàlla tey aussi tamit man li may def ci ñoom peut-être que ci euh, man mbébét ak yéene bu ma amoon ci sama bopp la. Mm-hmm. parce que man tey jii nii mën naa ne euh, maanaam man dama juddu xàmmee euh, nekkoon sax maanaam mbër. nekkoon écurie Fass nekkoon faak tey jii nii sama mag Papa Sow mi fi jóge sànq ci suba ñëw tudd si xale bi moom moo ma yóbboon écurie ak Ousa saw magam ñoom ñoom fa yóbboon ak ñoom Batika ñoom ñoo ma yóbboon écurie Fass ma nekkoon faak ñoom mais xëy na li yàlla di def kër gi moom xam nga du kër goo xamante ne tey xam nga lu bëree bëri duñ ko nangu comprendre nga parce que gis nga yu bëri mënu fi am parce que maanaam këru diine la waaw loolu moo tax mais tey ji sama digganteeg mbëri mooy ñi fi jaar ñëpp ñoom Ousa 2 ñi fi nekkoon ñoom ñëpp ñi nga xamante ne Alboury Giri 2 mi

li may wax chaque jour ay ñoom Bastafa Tafa junior yi ngay gis nii ñun làmb boolewuñu parce que tey ñun bi ñuy nekk ay xale lañ di ànd boobu kenn bëreegu si ñun ñëpp ñii ñoom ñëpp ngay gis nii tey kenn bëreegu si ñeneen ñi ngi fi gis nag ay ñoom Alburi ñoom Buusi tey ñoom Bekaay ñoom Këll gi Agogo Yatanza bu ma limee sax damay juum booy am combat ñoom ñoom euh, ñoom ñoom nga xam ne dimanche bii lañ war a bëre ba ci ñoom Goro Sok Anaconda ñoom ñëpp ñu ñëw fi tey mm. waaw tey loolu dafa rafet rek parce que tey damay am si ñoom yéene parce que tey dama naan man yéene bi moo amoon sam bopp tey yàlla mun na dogal mun naa ko yeggal tey si xale yi ba yàlla di leen def tey ñuy dem di bëri ji di ci am ay résultat mm. ku mel ni ay ñoom Bou Siteu ñoom ñàkk jariñu ñi fi ñëw ñëpp. tey jii dañuy jóge ci ay dëkk ak dëkk ñëw fii nii di entraîner si mm. waaw tey mënoon nañ yem fi ñu dëkk parce que am na ay salle mais tey yàlla moo def tey ñu doyloo ma xam nga gis tamit liggéey bi loolu moo tax ñoom ñëpp ñu fiy ñëw daal di si jàpp uh-huh. ngay saan waaw ban conseil ngay jox athlètes yi ak ñi nga xamante ne dañuy entraîner ci salle yi en tant que coach ak état de forme yi ngay gis ci mbër yi actuellement nii ban message nga leen di waaw état de forme moom bu ci kenn nax kenn parce que tey jii nii yàlla def na moom nit moom bu ko yàlla defalee muy mu nekk sportif nekk xale war na am doole par force parce que lan moo koy may doole mooy da nga war di récupérer parce que mbër yu bëri ak athlètes yu bëri leen di manqué doole ñàkk récupération la comprendre nga mais képp ku ci nekk xale tey di entraîner war nga mën a am récupération boo amee récupération di nga am doole tamit ñun chaque jour loolu lañ leen di wax bu ngeen naree ñëw entraîner te du ngeen récupérer mieux vaut ngeen sax toog bañ a entraîner parce que entraînement ak récupération ñoo ànd lekk yi tamit am na ci solo trop waa di leen wax chaque jour rek ni ñuy gën a góorgóorlu parce que tey jii nii ñun am nañ ci ñoom yaakaar moo tax jàpp bi ñuy jàpp seen i affaire ñu koy def parcelle tamit am na ci ñoom yaakaar ñi dëkkul parcelle xam nga tey ku mel ni ñàkk jëriñu jóge ba caaro yi caatu yof jóge ba yoof bu Siteu di jóge ba géejawaay ñu romb ay saal yu bëri Ablaye Ndiaye ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen di jóge saal yu romb fu sori ñëw ba fii di entraîner si parce que yaakaar lañ am kon yaakaar boobu ñu am ci man bay ñëw di entraîner si dama leen di ñaanal yàlla na leen yàlla defal jàmm defal leen xéewal defal leen ay ndam ñoom ñëpp ñi fi ñëw ak ñi nga xamante ni tamit peut-être que tey gis nga xar-xar yi waaw ñëw ñi fi ñëw ñëpp maa ngi leen di sant bu baax a baax a baax a baax di leen gërëm waaw kon su ma déggee wax ji coach suma am sax li muy ñaanal bëri mooy képp kuy entraîné ci saalam koo bëree yàlla na ko daan waaw lool laay ñaanal ñëpp ah <laughs> waaw boo fi dëkkee entraîné moo fi sax ñi fi dëkkul bu ñuy bëree fi entraîné fii dama leen di ñaanal ñu daal rek parce que ku ci nekk tamit waaw ah. gën a jege la ñuy wax gën a yaay lu dëgg hmm. parce que tey jii nii man même ñi fi nekkul tamit dem feneen tamit dama leen di ñaanal yàlla parce que tamit ku fi nekk tamit dem feneen ñeneen a ngi jóge feneen di ñëw fii te yàlla def na tamit mën na am ëppoo leen doole mën na am ëppoo leen tur mën na am dàqoo leen bëre hmm. mais tamit àdduna moom moo tëddee noonu mais man moom maa ngi sant yàlla parce que tey bu newoon parcelle tey cent mbër ñoo fi nekk wala deux cent mbër fi nekk man sa ñaaykat sama loxo ne bu dee deux cent lañ cent quatre vingt dix yëpp ñu ngi xëy si di ñëw si man di entraîner si. kon loolu moom ma ngi ci sant yàlla bu baax a baax a baax. jaajëfal nañ bu baax waaw waaw bu loolu weesoo nag euh, soxna si moom mooy aussi maa ngi koy sant di ko gërëm di sant ay waajuram di sant euh, ay seen waa kër yëpp. waaw ki nga xamante ne tamit moom laa tuddee tey suma doom muy suma muy ma Madika Sarr. moom it muy sama mag moom it aw ma fayam wax dëgg yàlla ndax taxawu na ma taxawu na ma taxawu ma yoo xamante ni tey jii nii wax dëgg yàlla euh, waaw am naa yéene daal bu ëpp tamit lii ci moom ak su ma yeneen mag yëpp ak sama rakk yi nga xamante ni tey ñoom laa bokkoon ndey ak ñu góor ñi ak ñu jigéen ñëpp ñi fi nekk ak ñi fi nekkul ñëpp maa ngi leen sant bu baax di leen gërëm di ñaanal ñëpp am jàmm ak salaam yàlla yokk xéwal yi bu baax a baax def ko ci kër gi def ko ci kër yi nekk si àddina bi yëpp def ci Sénégal yëpp maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp waaw noonu la demee. jërëjëf maa ngi lay